Euh, yaakaar naa ne euh, mun a liggéey ak ñoom moo waral loolu di leen ñaanal di leen encourager aussi di wax ne population baa ngi seen ginnaaw di leen jàppale ci liggéey bi xam nañu liggéey njàngale jàng jàng jàngalekat dafa metti mais bu ci parents d'élèves yi jàppee rek yaakaar na ne war na mun a xaw a oyof ci benn côté euh, vraiment ci gàttal daal loolu laa bëggoon wax di leen encourager di wax ne fi ñu fi ñu fi ñu jàpp foofu la daal foofu la parce que depuis bu ñu ñëwee ba léegi gis nañu euh, Mbarem Ndiaye bi mu fa dugg see ba léegi gis nañu mun nañu sax du ma nee relever le défi parce que am na lu fi nekkoon loo xam ne fekk na ko fi mu taxawoon mais daf koo yokk daf koo yokk kon loolu aussi mënuñu di di ko ñaanati di ko ci jàppale di ko encouragé ndax tey ku fi ñëw ci école bi rek mun naa ne da ngay école bi macha allah mi ngi boo boo xoolee rek nga xam ne école baa ngi jëm kanam même grève yi grève yi fi daan am yàlla def grève yi am mais mi ngi doon def ak. Euh, que euh, euh, moi euh, cours de renforcement yi am am nos volontariat bu fa moi moi les facilitateurs ku ci mel les Faye les Cheikh sar les Richard Ndeki xam nga les monsieur Guèye xam nga ñooñu ñëpp jàpp nañ ci xam dañuy même en temps de grève dañuy ñëw appuyer de telle sorte que ça mun naa grève bi ñun sentiruñu ko kon loolu bu ñu ko amee am ku ko diriger kon ñun dañ ciy sant yàlla bu baax a baax ñaanal parce que xam nañ ne jungle njàngale moo ko soxal xam ci loolu dañ ko ciy jàppale te ñun ku ku jàngal suñu doom rek la ñu soxla man na man maa représenté parents d'élèves yi man maa ngi wax ci cadre parents yi kon madame Ndiaye ñu ngi koy jëfal di wax ne fi mu bugg àggale école bi yàlla na ko fa yàlla àggale te gàttal daal loolu laa amoon doy wax fête bi tey nag vraiment nekk na fête bu mucc ayib parce que ku fi ñëw ku ne yaakaar naa gis nga li fi ne xam na ne moom engagement am na ci volonté am na ci organisation bi yëpp